سيدنا ومولانا محمد وعلى جميع آله وأصحابه ومن نهج نهجه إلى يوم الدين ورضى الله الخالد عن جميع المؤمنين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن سائر خلفائه أجمعين bokk يسلي تتد نيجي نيو مبولم ñu ngi ci réew mi ak bitim réew sunu kaddu di bawoo fii ci Scat Urbam ci al idaa Safina FM 98.2 seen mbokk Massila Kane dellu siwaat ci émission bi ñuy wax jaar-jaaru mag ñi tabarakallahu muy émission boo xam ne ñu ngi ciy jéem a xañtu jeexitalu mag ñu baax ñi ak fi ñu tegoon seen tànk ba tax ñu nekk ay royteef yoo xam ni ku leen roy tabaarakallaahu yàlla mën na la eh, aj ca seen dayo yu kawe ya te sell mu ne aj gu ñu nangu daal daara du payam lu dul aljana rek ci gàttal tabaarakallaahu ñu demoon dellusi nañu ah waaye tabaarakallaahu ñu dooli leen a sant góorgóorlu nañu leen yebe woon ba ñuy dem nu yennee leen noonu ci ay conseil ndax ku sangu ji ba ñëw set lool sell lool effort yi nga def ci wàllu finance def ko ci wàllu sa doole def ko ci sa temps loolu yëpp boo dellu siwaatee te sàmmuloo ko eh, dafa mel ni li wolof yi wax ni dafa mel ni kuy root di sotti ci sendal wala boog ci ñi déggul wolof lool di root di sotti ci tame kon tabaarakallaahu nit dina aji dellu si def mbaa mu wax lu lakk aj ga ba mu def dóom balaa aj gi dellu waat te xamul aj gi dina ko fi fekkaat ba mu mën a demaat walla boog bu ko fi fekkaatee dina am ay moyens yu ko yóbbuwaat wala déet tabaarakallaahu ñu toog ak suñu wëllëre suñu xarit nu yàgg lool di taalibe di boroom xam-xam muy fadilatul ustaaz Ahmadou Sall nekk fële ca Pikine di bokk di nab nabi ci daayira yeeg daara yeeg yëf mu nekk nag suñu aji gunge tey ci waxtaan wi di sunu wettal su ko defee itam nit ñaa ngi toll ci nganale waaye waxoon nañu leen ci njëlbeenu waajtaayu aj gi ni aj màkk Sénégal metti na ndax waajtaay wi rekk alal ju dul jeex la dellu siwaat gi ci nganale gi alal ju dul jeex la te billet bi cher na yàlla dogal mu bindoo noonu mu cher Nous sommes à 2,5 2 500 francs. Moi, je passe avec cette devise. Je voudrais faire 500 000 francs sur le territoire. Je vais 3 millions. Je voudrais faire encore 500 000 ou 700 000 francs sur le territoire. Je voudrais faire 3,7 Sans compter l'argent de poste fas ko yéenee jënde ay sërica te kenn mënul dajal ñépp dafay mujj togg la na joo xam ne day mujj sax dootoo sawar ci farata te aj ci ponk yi la bokk moo tax tabaarakallaahu ñu ngi toll ci nganale waaye daal lépp lu àndul ak yàlla ju set daanaka rek du ko jar wax naa ko benn mbokk ma ni màkke day jóg jëm fa am na ñoo xam ni bu ñu jubee yonent bi mu ni bëri teeru leen tatagal leen dalal leen la ko waral mooy la mu daan défendre tax ñu yónni ko mu di ca sonn ba tëdd ca barabam bu tëdd bële kooku muy teeroo ko tatagal aka sargal dafa nekkan ca loola kemtalaay lu mu man ba ni mu nammee yonent bi ba dem fa noonu la ko yonent bi nammee moo tax buy jub dëkk ba yonent bi di jóg di ko teeru di ko tatagal di ko dalal waaye am na ñoo xam ne day ak lu mën a xew bu ñu jubee Madina wala ñu jub yonent bi bu sanoonoo daw génn Madina bàyyi ko dëkk ba dina ko def ndax la taxoon ñu yónni ko la mu ca yàq ak la mu ca sàggane ba yonent bi jéppi ne ko laata muy jóg jëmati ci moom te ñaar ñooñu rekk fi nekk ñooñu muy wax ne nit dina ñëw aj si bu nee labayka labayka allahuma labayka labayka la sharika laka labayka bu nee labayka ñu ne ko laa labayka wala saadayka fa inna xajjaka mardud wala jarul labayka sa aj googu moom doo ko fi bàyyi dañ koy sànni mu topp la ndax dara yiw ci dara yàlla newu ci kon yal nañu yàlla musal ci bokk ci kuréel boobu kon li ma leen daan wax ne léeg leen nga dem ci nganale màkka nga dégg waxkat ya yore micro ba di wax ni sàllaaw dangaa ngaa jëli woon sa kaala wala ñu ne ñeent fukki guddi bu ñaanee yàlla mu nangu bu dee waxi da ngaa jëliwoon sa kaala moom li may faral di wax ne du waxi farceur du waxi kuy jaamu ci aj màkka waxu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam so xole hadith bi nimu waxe bi nga xamne eh waxu yaronte bi la yaronte bi sallallahu alayhi wasallam daf ni man qada li akhihi al muslim حاجة كان له من الأجر kaman xaj wa atamara nee na ku fajal mbokkum jullit aajo doonte benn aajo la rek nga fajal ko mbokkum jullit nee na yool ba dafay mel ni ko aj màkk mbaa nga umra xanaa kay kon boo dëkkee faj sa aajo yi mbokk waxuma benn aajo waaye li nga faj ci aajo kenn xamul nu mu toll kon ñaata yoolu aj ak umra nga am kon kay boo jógatee jël avion di dem da ngaa jëli kaala xanaa leer na ah tabaarakallaahu beneen bi ci des ñu ne fi ñeent fukki guddi boo ñaanee yàlla mu nangu ko man jàpp naa ne war naa ëpp ñeent fukki guddi ndax yonent bi nee na alxajjul mabruur laysa lahu jaza ilal janna aj gu ñu nangu dara du payam lu dul aljanna koo xam ni nag sa aljanna tabax nañ ko ba pare di la xaar yaakaar naa ni calal la lijaaba yem loo ñaanati yàlla nangu ko kon diiru li nga fi desaat boo ñaanee yàlla nangu ko boo yemee ci ñeent fukki fan nag dafa mel ni borom bi daf la jox benn piis boo xam ni 40 jours rek ngay woote ñu dagg la dootoo mën a woote dootoo mën a wuyu kon tabaarakallaahu loolu noonu la demee a ah, jaar mag ñi nag muy émission bii nga xam ne daanaka ñaari fànn la am benn branche bi rek lañ daan jël muy biographie wu mag ñi mooy fi mu jaar fi mu juddoo ni mu daan doxalee ak yooyu loolu mën nañ ko tuddee jaar-jaar waaye tamit fi mu jaar ba jàll ba àgg fa mu jëm ni lëng ba ñëpp seen ko itam jaar-jaar la tudd te dara ëpp ci masuliya bi nga xam ne yàlla jox na leen ko ñu respecté masuliya bi muy responsabilité taxaw ci bu baax kon loolu bu boobaa bu dee responsabilité rek dafay dellu ci képp koo xam ne tey am nañu bootu ci sa ginnaaw di la déglu boo doxee ñu dox boo taxawee ñu taxaw boo waxee ñu ne iskay walla boo boo joxee ndigal ñu exécuter kon ku ci nekk rek sa responsabilité boo ko doxalee yàlla mën naa def nga am woy woo xam ni du dakk mukk kon tabaarakallaahu mag ñooñu li taxoon bu ñu ñaanee seen boroom mu nangu bu ñu jaamoo seen boroom jaamu gi jàll bayit bii nga xam ne mas naa dégg ci alxaaja abdul aziz yi radiallahu taala anhu mu wax ko ni taqabulu saa yi wa maxwu zalali libni thamanina bi mannil mufdili mu ni taqabulu saa yi loo jëf yàlla nangu ko wa mahwu zalali rëcc rëcc boo def yàlla jéggal la ko ni samaniina ñeel na boroom juróom-ñetti fukki at c'est-à-dire boroom juróom-ñetti yoo xam ne ci jaamu yàlla la ko am bi man nil mufdili loolu nag don wala may la goo xam ne kiy joxe ngëneel muy sunu boroom moo ko jox boroom juróom-ñetti fukki at yoo xam ne ci diine la ko am ak ci jaamu yàlla yoon yooyu la jaaroon ñoom mag ñi ci wàllu mbaax li ñu am yëpp ñu am ko e, ñu nettali ne ibrahim ibnu adham nga xam ne bari na lool boroom waxtaan boroom xam-xam yi waxtaanket yi di ko cité moom la marabu cheikh doon wax ni dafa ànd ak taalibe ba ñu dem ba ci àll bi te xiif mu ne taalibe bi ni ko ñaanal yàlla ndax lu nu añe nee na naka mu tàllal ne allahumma rek booli booli lekk daal di wàcc taalibe bi commencé raxas mu ni ko boo ko laalee rek yàqu mu ne ko lu tax mu ni ko jógewul ci yàlla ci seytaane la jóge mu ne ko loo ko xamee mu ne ko dama xam ne yàlla xam ne ni ñun ñaar rek benn palaatu lekk doy nanu kon bu bóoli wàccee piège la Ibrahima ibnu Hadam day dox ci marché Busra wala Basra nit ñi wër ko jóge fu nekk ndax da doon xakim di aalim di aabid ku change la ku xereñ ci wax nekkoon it nitu yàlla nekkoon jaamukatu yàlla ñu laaj ko ni ko borom bi dañu gis ni wax na ci téereem bu tedd bi alquran ni uduuni astajib lakum ñaan leen ma ma may leen loolu ni fàng ci alquran mu ni waaw waaw yàllaa ko wax mu ni waaw loolu nag nun ñëpp nu gisandoo ko te mun mundu dëhri nad'uuhu fala yustajaabu naa noo ngi ñaan sunu borom te ba léegi daal li ñu koy ñaan gisuñu ko te loolu seetlul ci jamono bi jàkk yi fees na kurus yi gudd na téere yi rëy na ñaan yi bari na waaye ba léegi rek jàmm te ticc lijjantiku te ticc jafe-jafe yi gën di yokku lu mel noonu lañu ko laaj mu ne leen yaa ahl basra maatat qulubukum fi ashrati ashyaa mu ne yéen waa basra maa ngi leen di xamal ni seen xol yi kat li tax mu ngeen ñaanee du nangu dafa dee ci ñetti ci fukki mbir fukki mbir moo rey seen xol yi kon fa kayfa yustajaabu duaaukumul aw duaaukum nan ngeen di nan lañuy ñuy mën nangoo seeni i ñaan te seen xol yi de ci ñetti ci ci fukki mbir ñu ne ko ah yow ki yàlla may xikma fukki mbir yi yan la mu ni bi ci jëkk mooy araftumullah taala walam tu addu xaqahu kenn gënu leen a xam yàlla xam ngeen ko xel ndax màndarga yi wane yàlla bari na te moo ko wane kon xam ngeen yàlla waaye li doy waar mooy joxu leen xam-xam googu ngeen xam seen borom ak xam joxu leen yàlla ak xam loolu moo tax benn boobu mooy bi ci jiitu te loolu moo am ndax yàlla wax na ci xaddisal qudsi ni nit ak jinne fokk ma dem ak ñoom ci yoon inni wal ins wal jinn ala naba in azim xalaqtu fa yaabudu gayri wa razaqtu fa yashkuru gayri dinaa dem ak ñoom ci yoon parce que dama leen a bind ñu jaamu keneen ma wé ma xe ma wërsëgal leen ñu sant keneen kon nag fokk ma dem ak ñoom ci yoon kon xam gi ñu xam yàlla te delluwuñ ko joxuñu ko akam benn mooy bi ci jiitu bi tax seen xol de mu ni bu ñaareel bi qara'tumul qur'an walam lu bihi jàng ngeen alquran rek jàngum debent rek wax dem rek muy jaar ci nopp yi dem di jaar ci làmmiñ wi dem mais du ngeen ko jëfee ñaareelu li lakk seen li rey seen xol yi ba bu ngeen ñaanee du nangu mooy jàng alquran ba pare du ngeen ko jëfee moo tax Seydi Malick radiallahu taala anhu nee na jibril ginnaaw bi fi yonent bi jógee sallallahu alayhi sallam ñëw na fukki yoon fukki yoon yooyu dafa am ay valeur yoo xam ni moom la doon jël si ba mu ko jëlee ba dem ca jikko yi commencé nag dal di commencé gëllu góose di yàqu min baadihi nazilun ya an fa yarfau ya fi rafiha fasaadul xalqi wal xuxumi yumnun wa xubbun wa raxmun maadilun wa xayaa sabrun wa zuudun saxal quraan bi bi salami Alaaji Maalik nee na mii ngeen di jàng suba ngoon dem na ibrahim ibnu adham ni qara'tumul qur'an jàng ngeen al qur'an gaa walam taamalu bii waaye jëfewu leen ko loolu bokk na ci lakk li rey seeni xol ba bu ngeen ñaanee yàlla du leen déglu mun leen bu ñetteel bi lakk seeni xol mooy adaytum xubba rasuli xubba rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa taraktum sunnatahu bés bu nekk yéen a ngi woote ne di a sopp yonent bi te ngeen ni fi ñukk sunnaam nekk ci leneen kon loolu bokk na ci lakk seen xol boo soppee kay ki nga sopp danga koy topp inal muhibba li may yuhibbu mutiiu mu ni ñetteelu li lakk seeni li rey seeni xol ba bu ngeen ñaanee du nangu mooy loolu waree ni sopp ngeen yonent bi te lu mu santaane du ngeen ko def moo tax jullit booy boo koy waxtaanal da nga koy laaj jëkk ni ko ndax gëm nga yàlla mu ne waaw nga ndax gëm nga li moom ay waxam muy alquran bu nee waaw nga ne ko ndax gëm nga yonent bi bu nee gëm naa ko nga ne ko ndax gëm nga ay waxam bu nee waaw nga tàmbali nag waxtaan nag moom waaye gëm yàlla te li alquran digle doo ko def doo ci jaar li mu tere doo ko bàyyi du sotti motax tax bi borom bi wax ne kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna anil munkar wa tu'minuna billah xam nga bu waxe ne yéen gën ci xet yi yéen xetu Muhammad yéen gën ci xet yi kuntum khayra umma xet bu ma sa wàcc ci kaw suuf yéen ci gën waye ay une condition ta'muruna bil ma'ruf ngeen di digle lu bax wa tanhawna anil munkar di tere lu bon te lolu ñaari charte ci aju ci kaw bala ngeen bala ñoo nangu ni yéen a gën ci xeet yi day fekk ta'muruna bil ma'rufi ngeen di digle lu baax loolu ñaari tànk la taxawe ndax digle lu baax sañuloo koo def ñu di ko ñu accordé ko te nekkoo ca kon dangay ngay boole nekk ci lu baax digle gi doo a ñëw kon ñaari tànk la taxawe wa tanhawna anil munkari di tere lu bon kooku ñaari tànk la taxawe sañuloo taxaw di tere lu bon ba pare te fekk bàyyiwoo ko ba noppi loolu la woykat bi waxoon ni waxay waxayru taqiyin yamuru naasa bi tuqaa tabibun yu daawi naasa wa aliyu waxayru taqiyin ki ragalul yàlla ba pare yamuru naasa bi tuqaa di digal nit ñi ragal yàlla nee na kooku tabibun docteur la boo xam ne yu daawi naasa ma ngay jéem a faj nit ñi wa huwa alilu te moo leen gën a feebar mu ni wane cofeel yonent bi te du ngeen jëfandikoo sunnaam nee na ñaareel bi lakk seeni xol wala rey seeni xol ba bu ngeen ñaanee du nangu wala jur eh, ñeenteel bi nee na adiaytum adawata cheytaani wa ataatumuuhu du da ngeen a wax ni da ngeen a noonu cheytaane te bëggu leen ko seen noonu la ba pare te fu mu teg tànkam bu teggee ngeen teg fa seen tànk hmm? xam nga audu billahi min acheytaani rajim yàlla yal na nga musal ci cheytaane cheytaane takki bagaasam dawa dawa daw ba génn dëkk ba nga sol saw daal la fekk ko fa mu ne da ngeen di woote ni noonu ngeen seytaane mooy seen noonu waaye moom ngeen topp dégg naa sunu maam ju baax ji eh, radiallahu taala anhu Sëriñ Tuuba dafa ba sa toog ba yàggee am ci wet gi ko ni audu billahi min asheytaani rajim sëriñ bi ni ko loolu lu muy tekki mu ne xanaa muslu seytaane Sëriñ Tuuba ni ko jox ko yëfam mu ne ko yëfam yan mu ne ko bànneex ak bakkan ak àdduna du mu ngi noonu nga bébaru te yooyu alalam la moo tax mu topp la boo koy delloo rek muy demu yoonam bànneex bakkan àdduna ngu noonu nga bébaru te mooy alalu seytaane jox ko yëfam bu dee da ngay muslu ci moom pour bëgg mu daw la dem jox ko yëfam ibrahima ibnu adham ni yéen a ngi woote noonu seytaane te yéen a ngi ànd ak moom wala yéen a ngi topp ci moom fu mu teg tànkam bu teggee ngeen teg fa nee na loolu mooy ñeenteelu li tax seen xol yi dee ba bu ngeen ñaanee yàlla du ko nangu mu ni juróomeel bi ab aytum duxulal ja jan na janna walam taamalu laha bus bu nekk yéen a ngi jaagar jaagari di wanewu ko war a dugg aljanna te jëfu leen mukk luy niru ko jëfinu ku war a dem aljanna jëfandikoowu leen ko xam nga ku nekk fi nga jëm rek ngay woote ngay laajte aw yoonam xam nga ki jëm aljanna dëgg dafa am waajtaay dafa am nooy mel ci wàllu sell wàllu jaamu yàlla wàllu yiw wàllu leer ku la gis boo leen ne aljanna laa jëm dinañ ko gëm dafa mel ni tey rek ki jóg romb la ñaar ñi la romb ne pale lañ jëm dañoo am audience ak président de la république kenn ki ci boppam mi ngi solu ba jekk xëppoo parfum yor otoom bu baax ne la pale laa jëm dama am audience kenn ki ci boppam mi ngi fagg lool fourvoisé lool trim lool wenn daal la wa dagg mu bokk wa ca des di waaxu ni pale laa jëm même bu ñu waxee dëgg ki ngay gën a gëm mooy ki solu ba jekk yor otoom bu jekk xëppoo parfum ni ci pale ba laa jëm ca président kooku ngay gën a gëm moo tax ñaar bu ñu jógee jëm ci yàlla ka gën a sell gën ci yiw kooka ngay gëm ni ci yàlla la jëm mu ne nag di wootee aljanna eh, te jëfewoo jëfinu ku ca jëm day ndeysaan mbokk mu baax mële eh, yal na ko yàlla eh, tabbal aljanna jóom njaga ku siiw woon Eh, nit ñi farceur lañu ko tuddee woon rek jàppee ko ko noonu mu dëkk fële ci Kër Moussa def na sax ay kaset waxtaan yu saf xorom waaye nag léegi ci biir waxtaan yu saf xorom yi da ciy dugal dëgg yoo xam ne doo ko mën a daaj ji jëmee fenn ndeysaan xarit la woon ci Cheikh Ibrahima Aïdara Tijani moom ñu ngi koy ziar Jom Njaga eh, dañu dem seet si ko maak eh, Abdul Qadir lii bu Cheikh Ibnul Arabi lii rakku Cheikh Bachir li booba la ko eh, Abdul Xaadir jëkk a gis jóom njaga ni ni ni ma oustaz xam nga ni sëñ mën Mansour si borom daara ji moo jëkk a nekk sama taalib ma ne ko ah loolu nu mën a dee mun ma waaw moo jëkk a nekk sama taalib ca xombal gaar ma ne ko nu mu demee mu ne dama ko gis nit ñi di ko ziar di ko jox àddi yëf yi neex lool ma ñëw ba ci wetam ni ko man de sëñ bi dama bëgg a woote nee na man maa jóob woote diis na di nee na ma ne ko ma yenu ca àttan nee na mun ma jóob boo woo nit ñi ba ñu ñëw loo leen di wax nee na ma ni ko soxlas àdduna futti ku liggéey soxlas àllaaxira jaamu yàlla ku la munta tee tooñ munta tee ñu duma la yowmal xiyaamet ak sama yoon newu ci nee na sëñ son ah bu dee loolu de de kon kon nag man doon naa sa taalibe ma ne ma nee na ma ni ko ñëwal loolu ku ko mën a daaj nee na bu ma woo nit ñi bañ ñëw dama leen di wax ne soxlas àdduna futti ko liggéey soxlas àllaaxira jaamu yàlla ku la munta tee tooñ munta tee ñu duma la yowmal xiyaamet ak sama yoon newu ci nee na sëñ Mansoor ni ma ah, bu dee loolu de sa taalibe la nee na man ko ñëwal waaye bëgg am teraanga te doo liggéey ak bëgg a dem aljanna te doo jaamu sa borom dalul xel nee na juróom-benneel bi nga xam ni moo rey seen xol yi ba bu ngeen ñaanee yàlla du ko nangu li Ibrahima ibnu Adham moo ko wax nee na yéen a ngi woote ni yéen a ngi def lu leen musal ci safara te bus bu ne ngeen xalab seen bopp ca safara dugal seen bopp ci safara def nekk ci loo xam ni ku ca nekk boo ko wàccul safara ngay teeri day man yéen a ngi ci tey wane nii yéen a ngi moytu safara nee loolu bokk na ci li rey seen xol yi nee na bi ko juróom ñaareel mooy yéen ñëpp bokk ngeen mànkoo ni dee dëgg la ndax bus bu nekk ngeen dem dëj dem jaale ji wax ngeen ko waaye waajalu leen ko waajalu leen bis boobu ne dina ñëw muy bis dee loolu sëriñ Moussa Ka wax daan wax ne loo xejj xejj du tee dee def sa gan di la wër te loo ko ber lu dul sag ruux du génn sa kër bu dig ba weesoo ba ruux ga wujji yàlla keroog moo gën a metti juróom-ñaar fukki rab buy sar bis buñ la dee jangti-jangtee yóbbu suuli ba ñëw xarit ya fàtte la sàkket yëpp dat ni we sar jabar ya tënj la say doom daal di donn alal ñeenti weer ca kanam asluf sa bokk yi ñëw garoo jabar ya te dootoo denc faw jabar nga wéete wéet ni cundum bàmmeel ba xat gamu xat ak tër ba jëm abadan yaram wa ak lañ ci muuran lépp def saxi wer mu ne yéen gëm ngeen ni dee am na waaye du ngeen ko waajal nee na juróom-ñetteel bi rey seeni xol ba bu ngeen ñaanee du nangu ashgaltum bi uyubi ixwaanikum fala tarawna uyuba anfusikum bus bu nekk yéen a ngi yittewoo sikkus nit ñi te yéen a gën a sikk ñëpp te seen sikkus bopp du ngeen ko vérifier du ngeen ko xool waaye sikkus nit ñi bés mu nekk ci ngeen nekk di ko xool te loolu lu garaaw la surtout nag xool ko ba pare tudd ko li Serigne Cheikh Tidiane si wax nee na bàkkaar ñaar la ki ko def metitlu ko réccu ko mu nekk yiw ci moom ak ki ko siiwal mu topp ko ndax bàkkaar bu ko yàlla teggee ci nit rek ka gën a rëy làmmeñ te kenn yónniwu ko ci bàkkaar bi kala ko kooku la ko yàllay gàll léegi nag mu yóbbaale bàkkaar yëpp mu ne dangeen ngeen di soxlawoo sikkus nit ñi fàtte seen sikkus bopp nee na loolu bokk na ci li nga xam ne moo rey seen xol yi surtout nag nga tudd sikk sa walla nga tudd jëf ju ñaawi nit yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam man ayyara axaahu bi dambin lam yamut xatta yaamalahu képp ku weeje sa mbokku jullit bala ngaa dee weeju man ayyara ku gàcceel axaahu mbokkam bi dambin ci bàkkaar sa mbokk def bàkkaar doon ko nëbb ndeysaan nga yëg ko weer ko lam yamut xatta yaamalahu doo dee mu te yàlla na towu la bàkkaar bi moom la mag ñi wax nee nañu noonoo gi am diggante muusa xaj ci weeroo la tàmbale noonoo gi weeroo moo ko jur nee na yontu yàlla nuux bi ko yàlla yónnee muy woote waa dëkk ba gàntu te buur bi ni ko defaral benn gaal soo ko defaree ñi la gëm dugg ci biir ñi weddi dinaa wàcce ndox kaw ak suuf labal leen muy defar gaal gi ba mu àggee buur bi jox ko ndigal ci ni ko bu ndox mi wàccee day faagaagal lépp lu doon dund ci kaw suuf kon lu ne jël ca góor ak jigéen ni nit ñi gëm dugge animaux yi jël bu ne góor ak jigéen animaux sauvages yi animaux domestiques yi ñu ne yontu yàlla noox ni leen nag comme gaal gi mën naa dure ci kaw ndox mi xamuñu ñaata at dañuy arrêté rapport sexuel yi bu kenn ànd ak sa jabar ndax dañuy bañ njur mi bari mu jox poids gaal gi mu diig kon nag na kenn ku ne ab abstenir bàyyi soxnaam ba mission bi àgg nee na la mu tere woon xaj doon sàcc di ànd ak soxnaam muus gis ko dem boole ko ak yontu yàlla nuux ni ko la nga tere woon xaja nga koy def nee na ba yontu yàlla nuux ñëw yem ci nee na xajit daal di ñaan boroomam ni ko nag muus mi ma weer te man yónni wuñu ko ci man yoonam newu ci maa ngi lay ñaan ni ma weere yal na ko weeree noonu nee nañu yàlla nangu ñaan ga xaj moom comme wàcc na ndigal yàlla nattoo na ko fu mu ko defee la plupart ñu bett ko du fa mën a jëlee boppam waaye muusit bala mu ko def ñëpp yëg ko ku am kër dëkk ki muus xam nga ni bala ñoo an sëy dinañu daaneel bool yi këpp ndox ma felaxoo jaar ci kaw ardoise xanaa loolu nattu nattu ëpp ko mu ni seen noonoo gi weeroo ak weejoo moo ko waral te yonent bi nee na ku weeje sa mbokku jullit bala ngaa dee weeju Ibrahim ibnu Adham wax ne yéen a ngi soxlawoo ay bi seen mbokk yi te du ngeen yittewoo seen ayibu bopp boobu mooy juróom-ñetteelu li tax seen xol yi dee nee na bi ko juróom-ñeenteel bés bu nekk ngeen di lekk xéwali yàlla yi te du ngeen ko sant akaltum niama rabbikum walam tashkuru bihi nee na bés bu nekk ngeen di lekk xéewali borom bi te du ngeen ko sant nee na loolu jaaduwut moo tax nag seen xol yi dee ba bu ngeen ñaanee borom bi ñaan gi du nangu mu ni bi ko fukkeel dafantum mawtaakum tax taxtabiru bihim yéen a ngi dëkke suul néew yi te du ngeen waaru mukk te gas ba mu xóot def te sa mbokk moo daan àndal di dem ak a ñëw nga gas ba mu xóot suul ko ca maasale dem ñibbi toog eh, te waaru woo ku la gën a dëgër xol amut la góor ga waxoon ne yii ku mu daje ci yow nga tëdd yi doo xalaat nee na jabar joo xam ni jëkkëram dafa génn àdduna nga donn ko ñëw aye ci moom mu toggal la yàpp nga lekk ba suur mu lalal la der nga julli ca der ba ba pare biddanti nee na doo xalaat ndax ñetti néew ñoo daje kii fi jógee ba nga jël jabaram ma nga ca bàmmeele waroon nga koo xalaat yàpp wiñ la tegal nga lekk ci ba suur waroon nga koo xalaat ndax bakkan a tëdd nga door a mën a lekk yàpp nee na bakkanu ñaareelu mooy der bi ñu la la nga ciy julli borooma nga ca barsax ñetti néew yooyu yëpp nga jànkoonteeg ñoom ba pare di biddanti nee na doo te doo xalaat kat hmm? ñu ni loolu masuliya magu ko loolu moo tax ñaan yi bu ñu ñaanee ñaan yi bloqué wu eh, Serigne Cheikh Tidiane si nee na ca bali ndakaaru ya dafa am góor gu mage góor gu mag mag lool xam naa bu ñu ko doon xayma ci at man naa am na quatre-vingts nee na góor gi bu bal nee toy rek mu tari ayatul kursi su bal ne toy mu tari ayatul kursi yu nee na bi bal yi tàkkardaase mu daal di takk ab bu jekk di daw ñu ne ko ak ah, góor gi da ngay daw mu ne waawaaw waaw parce que yii bal ayatul kursi ba koy téyee mag a koy tari waaye kana koy mag ko moom am juróom-ñetti fukki at wala juróom-ñeent fukki at ba pare naan yii bal ayatul kursi yu ba koy téyee mag a koy tari ma kon day kon day àdduna tukki na waaw xanaa bala boog mag day am nekk ndaw ba pare nekk mag ci xam-xam wala boog ci cëru yàlla ñaan yi bu ñu ñaanatee rek ñaan yi pour mu àgg dafay jafe ndax jikko yi eh, eh, ku ku baax ki wax muy Ibrahim ibnu Adham yonent bi sallallahu alayhi nag am na ñaan gu mu ñaan ñaan goo xam ne sénégal gii day waroon na télévision yeeg rajo yeeg autorité yi ñëpp dégg ko ndax ñaan googu yonent bi xam nga bu ñaanee yàlla nangu ko te aïcha ko nettali de aïcha ko nettali nee na sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqulu fi bayti dégg naa yonent bi muy wax maa ko dégg man aïcha maa ngi sama biir néeg dégg ko mu ne allahumma man wuliya min amri ummati shay'an fa shaqqa bi alayhim fashquq alayhi ma dégg ko mu naan yàlla maa ngi lay ñaan képp ku ñu dénk responsabilité sama xeet wi lumu ci mën a doon ku yàlla dénk mbiru sama xeet wi nga sonal leen togg leen fitna yàlla na ko togg fitna yow yàlla nee na maa dégg yonent bi di ko wax allahumma man wuliya wulliya min amri ummati shay'an fa shaqqa alayhim fasquq alayhi képp koo xam ni jox nañ la responsabilité nga yilif ay nit moo xam directeur société nga moo xam président nga moo xam ministre nga moo xam loo mën a doon waaye ay nit a ngi gàllu ci saw loos di wéy ci sa ndigal nga togg leen fitna sonal leen yonent bi ñaan na Aïcha nee na ci sama néeg maa toog dégg muy wax ne yàlla kooku ko def yàlla na nga ko togg fitna ni mu toggee xeet wi fitna nee na dellu wax ni man wulliya min amri ummati shay'an fa rafaqa bihim farfaq bihi ni yàlla maa ngi lay ñaan képp koo xam ni dénk nañ la responsabilité tofal ay nit ci sa gannaaw nga yërëm leen ñeewante leen yàlla kookee yàlla nga ko yërëm ngay président ngay ministre ngay directeur de société ngay chef ngay président lu mu mën a doon nga jiite ay nit ñu bootu sa ginnaaw ñemewu ñoo def lu dul sa ndigal xooloo ci yàlla xanaa fitnaal leen yàlla dina la fitnaal waaye bu fekkee xool nga ci yàlla ba ñeewante leen yonent bi ñaan na nee na yal na la yàlla ñeewante Aïcha nag wax ni ma wax ni fal yaxdar ku kulla man wulliya amra amram min umuril muslimin mu ni képp koo xam ne méngale nañu la mbir ci mbiru jullit yi na nga wattandiku na nga def très attention antana laka daawatu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ñaanu yonent boobu dal sa kaw bi luxuqi almashaqati fi dunia wal adab fi l axira wal yakun mimman axsana ila ibadillahi fastaxaqa rahmatullahi wa barakatuhu bi duaai rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam nee na kon ku nekk war nga def très attention ci ñaanu yonent bi bu la yàlla dénkee mbooloo nga bàyyi xel mbooloo ma yërëm leen ñeewante leen moo tax ke la ñuy wax Omar ibn Abdul Aziz te ñu di ko wooye xaamisul xulafaa i rachidin ndeysaan ndax dañu wax ne alxulafaa u rachidun arbaa ñeenti xalifa yi nga xam ne ñoo topp ci yonent bi muy Aboubacar Omar Ousmane donte bi ñu fi jógee Muawiya ibn Abi Sufyaan moo ci topp waaye Omar ibn Abdul Aziz la ñu mujj di wooye xaamisul xulafaa i rachidin ndax rek melokaanu mu mel moom la ñu wax ni huwa xaakimun istataa fi bidaati ashurin faqat ay yuxaqiqa ma tajizu an taxqiqi xukumatu alaalami almutaxadira bi qawaniniha wa hayatiha menn moom mooy koo xam ni ci diiru weer yu néew mu am responsabilité yi jiite jullit yi réaliser loo xam ni gouvernement yépp yi ci monde bi lott nañ ci réaliser lu toll noonu moom Omar ibn Abdul Aziz mu wax nag ni dafa am bés soxnaam dugg fekk ko néegam en tant que président de la république la laa ko mën a misaalal te booba sax moo ko ëpp ndax amirul ne la kuy jullit ci àddina bi moo lay lit soxnaam fekk ko biir néegam mu bënn bëtam di jooy jooy jooy jooy yu metti nee na soxna sa laaj ko looy jooy yow day ndax dëgg yàlla sa jooy yi metti na nee na mu ni ko soxna si dama yilif aw xeet dama am responsabilité yilif mbooloo yilif aw nit yilif xeet wi di seen kilifa tey di seen président ma xalaat ki ñàkk ñàkk bi dem ba jural ko xiif xaw ma fu mu toll ci biir sama xeet waaye ma nga fa mu nekk tey amul lu mu aña amul lu mu reere te tey jii mi ngi ci biir àddina bi te jotuma ci moom jotul ci man mënul agsi ci man amul maqaama amul daraja bu ko mën a xëcc ba mu agsi fekk ma fii ma toog ci sama pale mënu ko amul doole amul daraja amul barke loolu ma xalaat ko dellu xalaat ki feebar ba sonn lool te amul ordinance amul kenn ku ko mën a taxawu ci feebaram ba tey jii dee la gën a yaakaar ci dund te xawma fu mu toll te mënul amul mënul am accès ci man ma dellu xalaat ki nga xam ne nii dafa rafle te ñu réere ko te mënumaa jot ci man ba ma jox ko lu mu sol te xawma fan la toll ma dellu xalaat jirim bi nga xam ni tey amul ndey wala amul baay wala amul baay amul ndey ñàkk lépp tey tumuranke lool te bët dajul ñëpp te ma fan la toll te amul benn moyen bu mu mën a def ba agsi ci sama pale bi ma dellu xalaat ki ñu tooñ néewal ko doole lottal ko te ki ko def di borom pexe te amul menn kenn ku ko mën a dimbali amul lu mu jëlee aboka amul lu mu fegee tooñaange boobu te xaw ma fan la toll te mënul am benn accès ba agsi ci man ma dellu xalaat ki tumuranke lool tumuranke xiin xiin di ak càmmoñ gisul frère gisul sœur gisul kenn ku ko war a mën a fekk ci tumuranke googu jàppale ko ma xalaat kooku nee ma dellu xalaat mag mi mage lool te yàlla nattoo ko njaboot gu ko mën a taxawu yàlla joxu ko ko màggaguñu mbaa màgg nañu waaye yàlla joxagu leen ay moyens te amul accès bu mënul am accès ci man am na ñu koy gàllankoor ba du agsi ci man wala boog jot siwul ci man ndax amul daraja amul barke ma xalaat kooku dellu xalaat ki nga xam ne jëkkëram dafa génn àdduna bàyyi ko njaboot gu sew te amul benn pexe pour mën a yor njaboot googu te mënul jot ci man amul benn pexe ndax amul daraja amul barke amul yoon mu mën a jaar ba jot ci man ma xalaat kooku dellu xalaat ki nga xam ne wërsëgam dafa néew lool la muy gañe bala ma caa dund semaine mu jeex waxti ma laa weer wu dee te mënul agsi ci man ba wax ma boppam te fu mu toll nee na ma dellu xalaat yooyu yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp ci goxi suuf fa alimtu ma xam ne anna rabbi sama boroom sa yasalu nii anhum yowma alqiyaama wóor ma ni bala maa jéggi sama tànk yowma alqiyaama comme maa leen jiite di seen seen kilifa bala maa jéggi yowma alqiyaama xam naa ne yàlla dina ma laaj seen mbir wa anna xasmi duunahum muhammadun sallallahu alayhi wa sallam te avocat bi taxaw di layyil ñooñu di leen plaider mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te kooku moo gën a jublay ñépp te mooy seen avocat fa xasiitu ma ragal nag man man abdullah man umar ibnu abdul aziz ma daal di ragal allah tasbuta li xujjatun mu wóor ma ni samaw lay wu ma mën a laaj yi ba yay avocat biir yonent bi sallallahu alayhi wa amut فلذلك كان لولو تخ بكيتو ما جوي جوي متي ما جوي هم نينا يي داي موما تخا جوي موتا ريسبونسابيلتي كوكوي خيب داغا تيان رولا تخاو ديف تي ليغا ورا ديف تي يونت بي نينا كلكم راع وكلكم مسؤول عن راعيتي موتا ناتال سا خيل تي خلات دا خيل خلات لاي جارين ba xam fi ngay teg sa tànk pour sa responsabilité nga mën ko doxal lu am solo la eh, nangoo nañ ci Serigne Cheikh eh, Ahmed Tidiane Al Maktoum mu wax ne bu dul woon xel nit du yilif dëkk bu gaynde dëkk nee na bu dul woon xel nit du yilif dëkk bu gaynde dëkk daanaka xele yi lépp ndax nee na li njëkk a bind mooy al aqlul kulli nit ki bala ñu koy bind li yàlla jëkk a bind mooy al aqlul kulli mooy intellect premier ndax nee na dafa bëgg nit ki bala ñu koy bind environnement am sotti ba bu ëllëgee bu bu bu sànkoo du amul lay parce que yàlla defaloo la ko li ko war a mën a encadré ba du sànku moo tax nettali la nee na Jibril yàlla daf ko yebal ci box bi mu bi mu denc xam-xam ni ko demal ci box bi nga ubbi ko ne ko kaay wuyu sa borom mu dem ubbi box bi yàlla den denc xam-xam ni ko sa boroom nee na nga kaay wuyu ko mu ne ko nee ko lànk na nee na mu ñëw ni ko xam-xam woo naa ko lànk na mu ne ko kon nag demal nga wool ma ragal yàlla nee na mu ñëw ubbi box bi ragal yàlla nekk ni ko kaay wuyu sa boroom mu ne ko lànk na mu ñëw ni borom bi ragal yàlla woo naa ko waaye lànk na mu ne ko kon nag demal ubbi box bi ma denc xel nga wool ma ko mu dem daal di ubbi box bi ñu denc denc xel xel ni tëll génn xam-xam ni tëll génn topp ci ragal yàlla li tëll génn topp ci jibril ni leen fu ngeen jëm ñu ne ko sa yoon newu ci ñun yàlla moo waxoon ni tànk xel génnul bu nu génn moo tax bi nga nu jukkee woonu lànk parce que yàlla moo ñu joxoon digal ni bu nu génn te xel génnul moo tax bu xel amul ragal yàlla xam-xam du sotti du am sax fu mu tegu moo tax Aïcha radiyallahu taala anhu nee na alaqlu asratun nee na xel fukki xaaj la ne la alaqlu asratu ajzain xamsatun minha zahira wa xamsatun minha batina nee na xel fukki xaaj la juróomi xaaj yi nee na lu ni fàng la juróomi xaaj yi ci des nee na baatin la dafa nëbbu nee na yi ni tey wane màndarga xel mooy as asumtu noppi noppi noppi noppi ndax yonent bi kat moo ko moo ko moo ko leeral nee na man samata naja ku noppi mucc hmm? ku noppi mucc bu ñu ko daan jàng am na suñu góor guñ daan léebal benn léeb nee pour wane ne ku ku noppi mucc nee na kanaara yi dañoo dëkk ci benn dex dëkk faak mbonaat nee na ñu nekk fa ba dex gi bëgg a ñiis kanaara yi nag war a naaw dem bi ñu waree naaw dem dal ni ñeewante nañu sunu mbokk mi di mbonaat mi ndax bu ñu ko fi bàyyee day dee ndax ndox amatul te moom dina kéemaane parce que mënul naaw comme amul ay laaf mënul naaw te ñeewante nañu ko ndax suñu dëkkandoo bu yàgg la waaye nag nan ko jéem a baaxe fexe ba yóbbu ko nee na ñëw diisoog moom ni ko ñun kat comme dañu fi bokk nekk ci ndox mi te ndox maa ngi ñiis te bëgg nañoo dem te bëgg nañ la yóbbaale a ah, dañoo bëggoon ñu déggoo ca yow mun leen lu ngeen def ñu ni ko dañuy jël benn bant ñun ñaar fekk ñaari kanaare la bu ñu jëree benn bant kanaare bi bu góor bi màtt ci catu bant bee kanaare bu jigéen bi màtt ci catu bant bële yow nag comme mënoo naaw nga màtt ci digg bi nu naaw ak yow waaye nag foog nga xam la sawaru waru gar nag waaye bu ñu defee loolu rek ñu daal dem mu daal di d'accord xam ne loolu pexe la mu mën a sotti nee na ñu jël ñaari kanaara yi ci màtt ci catle ki màtt catle bonaat bi màtt ci digg bi ñuy naaw di dem ba romb benn dëkk nag waa dëkk ba daan ni waaw lii de kenn mësu koo gis ñaari kanaara màtt bant di yóbbum bonaat nii mbonaat ma di leen tontu naan leen seen yoon neewu ci fi mu ŋaaŋee rek rëcc daal di rëcc <laughs> xam nga ku màtt ku ku ku sa bakkan addu ci sa ci sa ci sa bëñ boo ŋaaŋee daanu nee na mu daal di ndeysaan doon leen tontu rek ni mu ñemee ñeppee gémmiñ gi rek daal di yàbbi bant ba rek rëcc mu ni mu ni ci ci li ci li ni fàng ci ci xel mooy noppi yonent bi nee na man tan najaa ku noppi di nga mucc gis nga boo demee ci prison yi na ko seetlu muuma yaa fa gën a néew loolu moo lay wan ni bari na ku fa dugg sa làmmiñ la fa dugal prison yi ngay dem yëpp demal 100 mètres muuma ya ñoo fa gën a néew kon bari na ko dugg kaso saw làmmiñ la fa dugal te yonent bi nee na man kasura kalaamuhu kasura saxatuhu nee na ko sa wax bari li nga yàgg am ay jël moom la Pam Ndiaye daan wax yàlla ko yàlla yërëm nee na wax ju bari moom dof rek mbaa mën a kàcc waaw na ñaareel bi nga xam ni màndarga xel la te dañuy fàng mooy lewet yonent bi nee na alxilmu sayidul axlaaq nee na lewet mooy sangu jikko yi lewet moom la sëñ aadi naan bul wexat nit kaani ba mooy ñaareelu màndarga xel bi ni fàng ndax lewet koo ko jëflenteel moo xam ko mu ni fàng nee na ñetteel bi tawaadu toroxlu wala simplicité wala modestie bokk nee na loolu mandarga la ci xel ndax yenn xeeti rëy yi ak dangiiral ak guuxilex ak mën a tiitaru ak aju ci gàtt xel rek la delluwaat kay ku xam am xel dëgg dëgg dëgg di xalaat di nga xam ne toroxlu rek la war wàcc rek la war te yonent bi nee na man tawaadaa lillaahi la képp ko wàcce boppam te yàlla rek tax yàlla yëkkati la wa man takabbara ku rëy rëynu nag aka aju ajulu wadaahullah yàlla wàcce la rek nee na ñeenteelu màndarga xel te ni fàng mooy al amru bil maaruf wa nahyi anil munkar santaane lu baax tere lu bon ci màndarga xel la bokk nee na loolu mooy ñeenteel bi mu ne nee juróomeel bi taxqiiru nafsi wa tadliluha nee na doyadal sa bakkan ak toroxal ko ci xel la bokk ndax boo duufalee sa bakkan eh, réyal ko jox ko dimension bu kawe li maxtar Sekk daan wax ni ku def sa bakkan ilimaan dina la dina la julliloo ci jàkk joo buggul buggul woon jullee loolu mooy li ci nekk e eh, tabarakallahu eh, oustaz eh, Ahmadou sàll maa ngi la présenté woon ci njëlbeen gi bëggoon sax nga nuyoo ñu door a commencé émission bi waaye rek ma daal di faf rek daal di taañaañal te tabarakallahu ah waxtu waa ngay jege si waaye dama lay bàyyi nga nuyoo bala may joxe téléphone bi ndax 70 le 792 69 63 70 792 69 63 77 792 69 63 kon à Amadou la lañ waxone ci gi sa xam-xam sa disponibilité sa lewet sa mbax sa yar ah, te yàlla dogal tey nga teew ci sunu rajo bii di Safina FM di rajo xeet wi ñu ngi lay dalal di la wax tafaddal nga nuyoo mbooloo mi tabaarakallaahu te bay ci saw laaj bismillah bu baax a baax tabaarakallaahu maanaam da wax ne bokk na ci njëriñu xel mm-hmm. ci niñ ko niñ ko séddalee ni ko Sida Aïcha waxee radiyallahu anha ne noppi cër la ci waaye ma wax ne noppi googu bu dee ci seen wàll yéen wax mooy li nga xam ne mooy seen wàll waaw ndax noppi baax na ci nim ko waxee waaye ki nga xam ne itam yàlla def la wax waxloo ni ko Seydi Cheikh Ahmed Tidiane waxee rek ca waxtaanam ya wax ne noppi am na fu mu gënul fi nga war a waxee ne na noppi fa gënu fa mm-hmm. waaye fi nga war a noppee itam noppi rek a fa gën tabaarakallaa waaye yi ngeen jibal nii ci ay kàddu wax dëgg yàlla rafetul nañ ko yaakaar naa ne jaamu yàlla yëpp dégg nañ ko. Mhm. Eh, ñu ngi ñaan suñu borom subhaanahu wa taala mu may ñu topp ginnaaw dégg ci daraja Yonent bi sallallahu alayhi wa wax dëgg yàlla waxtaan bi am na solo eh, tabaarakallahu am na njëriñ yàlla nañ ko jëriñoo su ko defee alustaas moo bàyyi la nga xalaat tuuti rek. Mhm. ان شاء الله باش كلام تبارك الله جلال استاذ ندي نيغ لا بغونا واخلو واي داف نين دال ياغي بويكوتي ده سان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بام بيس مو دغ واخ جوك مام عمر بن الخطاب داي داجيك بنت ثعلبه بنت ثعلبه موم لا يالا واتي تي موم سوره المجادله المجادله ci mbiram moo tax ñu wàcc surtout mu jaade la naka mu xaqtaay rek ndaw si ni ko yaa umaru kunna naarifuka muddatan umayran summa sirta min baadi umarin umara c'est-à-dire summa sirta min baadi umayrin umara summa sirta min baadi umarin amira almuminin fattaqillaha yabna alxataab wanzur fi umuuri naas qabla an tadxak ndaw si ni ko yaa umaru yow omar kunna naarifu ko ñun day xamoon nañ la mu datan bu yàgga yàgga yàgg umayran ngay as omar su tuuti umayran su ma nga mujj nag min baadi umayrin bi nga nekkee as omar nga mujj nekk umara di omar mii ni di omar mii su ma nga mujj min di umari umarin ginnaaw bi nga nekkee umar nga nekk amiral muminina buuru jullit yi lii yëpp yàlla defal la ko mu ne ko fattaqillah ragalal yàlla yabnal xataab yow doomu xataab wanzur te nga teg sa bët fii umuuri naasi ci mbiri nit ñi qabla an tadxak moo gën ngay ree nee na mu daal di àgg suuf ni lii day bu ma ko góor waxoon sax duma duma humilier waaye li ma ko jigéen wax mu ma ci jaaxal waaye dafa fekk ni bus bu nekk li war nit ñi mën na jóge ci làmmiñu góor mën na jóge ci làmmiñu jigéen wax ju dal lay doon yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax wax bu yéemee daf ni sa yati yowmun ala ummati yuhibbuna xamsan wa yansuna xamsan يحبون المال وينسون الحساب يحبون القصور وينسون القبور يحبون الخلق وينسون الخالق يحبون الرذيلة وينسون الفضيلة يحبون الدنيا وينسون الآخرة nee na noo ngi jëm ci jamono boo xam ne nit ñi dinañu bëgg juróom fàtte dinañu bëgg alal lool wa yansawna alxisaab fàtte calcul ba alal nu ñu ko mën a amee baax na fu ñu ko mën a amee baax na mu leew ak mu ñàkk yépp a ci yem te fàtte nañu calcul ba te loolu law na nitu àdduna yi daj na leen ba ci nit ñi nga xam ne dañuy tuddoo yàlla dem na ba alal gand seeni xol ba bëgg nañu ko mbëggeel goo xam ne installé na ci seen xol foo xam ne dem nañu ba fàtte ni ëllëg yàlla lu waay am dina la wax foo dina la laaj foo ko jëlee dina la laaj foo ko dugal waaw nee na loolu jamono boobu dina ñëw nañu fàtte fàtte ni yàlla dina ko calculer laaj la foo ko jëlee ak foo ko dugal dama damay wax ne oustaz milliard du wërsëgu kenn nit bu la ko yàlla joxee dama jàpp ni daf la séddale waaye milliard du wërsëgu kenn nit ci dëkk boo xam ne yaa ngi milliard am ñu yoru dara kon war ngaa xam ni danga yoraale cëru ñeneen hmm? te it damay faral di wax ne am alal jurul jeex te kenn mënu laa waxal lu baax te alal boo ko yoree sax li gën a dal xel mooy bu yomal xiyaamee bu la yàlla poñee ni la ana alal ji nga ni ko mag di woo ko lekk waaye sunu borom ni la ràpp poñe ni la ana alal ji ngay xiin xiin yi mënoo tudd kenn loolu gàcce la yor alal ju dul jeex bóof ci dal ko ci compte yi moo xam ci réew mi la wala bitim réew ba yi ak lafañ yi ak malaat yi ak ñi am aajo bokk réunion ni nan jàpp ci yàlla bàyyi ko yëfam hmm? kooku xalaatoo bis bu ñu koy calculer nee na bi ci des yuhibbuuna al qusuur dañuy bëgg ay château ay kër yu rafet kër yu gudd ay immeuble dañu koy bëgg wayen saw na al qubuur fàtte bàmmeel te la dof ba waxoon Haruna Rachid ba mu ne dof bi waar ma dof bi daldi di joxar bi palais yi immeuble yi ni ko haadihi qusuuruhum daal di wëlbati ko joxañ armeel yi ko wa haadihi qubuuruhum dafa joxar bi château yi daal ne haadihi qusuuruhum seen palais yaa nga ne seen château yaa nga ne waaye ñooña day daal di joxane armeel yi ne wa haadi quburuhum seen bàmmeel yaa nga ne loolu doy na ak waar ndeysaan sama benn mbokk ku baax dafa nettali lu yéeme tontu boo xam ne sunu boroom moo koy kewal ndax dafa luye ci kër boroom kër gi fitnaal ko lool sonal sonal ko lool te yoreelu ko sax dara xanaa weer wa ñu toll rek la fayagul di ca xuloog moom ba dem ne ko toppal fële sa morom yëpp am nañu kër amoo kër moom boroom kër gi wax wax ko locataire bi locataire bi ni ko ah kay maag yow kay am nañu kër noo amandoo kër sax xanaa fu ma dëkk kay waaye maag yow kay am nañu kër bu yàgg te noo tolloo kër sax man wax na ko musiba bàmmeel ya la koy junj bàmmeel ya la koy junj ni ko bu mu ko nee magum jëmm toll yow ba léegi amoo kër loolu nit ku ku ku nite war na ko wax mu ne ko am naa kër maag yow ko amandoo te noo tolloole bu yàgg mu ne dañuy bëgg ay château fàtte bàmmeel te bàmmeel lu mat a fàttaliku la nee na bi ci des yuhibbuuna alxalq wa yansawna alxaaliq dañuy bëgg mbindeef fàtte ki bind bëgg mbindeef ba fàtte ki bind yonent bi nee na yéen a ngi jëm ci jamono boobu mbindeef nag dafa yaatu mbindeef mën naa nekk soxna walla sa jëkkër walla sa doom walla sa xarit waaye daal bëgg mbindeef ba fàtte ki bind mën na nekk sax leneen lu dul nit nga bëgg ko ba fàtte ki la bind te la taata li maxluqin fi maasiyatil xaaliq topp ku ñu bind rek ba mooy ki bind borom xel du ko def sëriñ Cheikh nee na nit mooy sangu àdduna waaye nit it yàllaay sangam àdduna nitay sangam di ko manipuler nu mu ko neexee moom nit waaye nit moomu yàllaay sangam mu ne kon nag di toppatoo sab jaam ba sab sang jéppi la boroom xel du ko def hmm? yow àdduna yoway sangam muy sa jaam waaye yàlla sa sang yoway jaamam kon nga sëgg ci sab jaam di àdduna di ko manipuler nu mu la neexee di ko jariñoo te sab sang mënulaa jariñoo muy yàlla nee na boroom xel du ko def mu ne dañuy bëgg mbindeef ba fàtte ki bind nee na bi ci des yuhibuuna radila wa yansawna alfadila dañuy bëgg jikko yu sew yu leen di toroxal yi leen di personnaliser ba fàtte jikko yu leen di jox ngëneel nit ñi ñu ngi doon yu tu ne ci yu tuutee tuuti yu doyedee doyeti loolu si daal ji Malick waxoon ne eh, ñeenti jikko yii képp ku ko jikkowoo sa ruux du yéeg muy jikkoy tan jikkoy baaxooñ jikkoy jàmbu jóob ak jikkoy séq man lam yatrahu tuyuru arbaa fa ruuxuhu ilal ula laa turfau nee na ñeenti jikko yii ku mu ne ci yow sa ruux du yéeg di koy séq sa xel yépp ci rapport sexuel la nekk sëy sa aduna yépp sëy la boo dee jigéen sa aduna yépp góor la boo dee góor sa aduna yépp jigéen la nee na sa ruux du yéeg loolu di koy séq di koy baaxooñ nee na rek foo toll yaa ngi animé la ngay wax dara amu ci njariñ coow rek ha ha, xaax xaax moom la Pam Njaay wax ne wax ju bari moom dof rek mbaa mën a kàcc mu di koy nee na ji koy tan lekk rek foo dégg lekk rafa lay foo la cin rombe di nga fexe ba xam lu cin cine te yonent bi nee na ida aqalla rajulu tuuma muli a jaw fuhu nuran nit ki bu néewee lu muy lekk ñu feccali biiram ak leer waaye lekk rek lekk rek waaw topp sa ndijoor rek nee na jikko bi ci des mooy jikko jàmbu jóg jàmbu jóob àddunaam yépp toilette la te puukaree tax ak wanu waaye bu dee jigéen jëkkëram taxul bu dee góor jabaram taxul mu ne dañuy bëgg jikko yu sew yu leen di persona dépersonnalisé jikko yi ànd ak ngëneel ñu wan ko gannaaw nee na bi ci des yuhibbuuna dunya wa yansawna al-axira dañuy bëgg àdduna fàtte àllaaxira xam nga ñi nga dégg ñuy pendre seen bopp aka taal seen bopp bëgg dem àjjana taxul xam nga ne bëgg a dem àjjana taxul ñiy rey seen bopp di xaru moo xam ñi taal bomb ñi sol bomb taal rey ay nit lañu moo xam ñi pendre seen bopp moo xam ñi dem ba ca buntu pale ba taal seen bopp la ñooñu ñépp bëgg dem aljanna taxut ndax bu doon bëgg a dem aljanna tax dañuy bàyyi ba ki bind aljanna reyal leen boppam waaye na yuhibbuna dunya wa yansawna al dañuy bëgg àdduna fàtte alaxira loolu tey jii noo ngi koy dund hmm? loolu noonu tey noo ngi koy dund kon tabaarakallaahu yal yàlla dolli ñu tawfiix dolli ñoo jàppale waaye daal la góor ga waxoon ne ñuul ñuul yi laal bu dëñul yàlla di xam solo ya su ko defee tam ñu boole ci nag jàppalente dimbalente taawunu alal birri wa taqwa wala taawunu alal ismi wal udwan juróom-ñaar ñi nga xam ne nii yonent bi nee na bu ëllëgee yowmal qiyaam yàlla dina leen keral te foofa ker jafe na fa nee na safiatun yazulluhum allahu taxta zillil arsh yowma yowma la zilla ila zilluhu nee na bokk na ci rajulaani taxabbaani fillah taxabba fillah ñaar ñi nga xam dañu bëggante te yàlla rek tax boo liggéey yàlla dina leen keral bokk na ci rajulun gadda aynayhi anil maxaarim waa ji nga xam ni daal ay bëtam gëmm na ko fatus ci xaraam ak waa ji nga xam ne bëtam gimmi na ko ngir jaamu yàlla guddi gi yépp ak bët biy jooy di tuur rankoñam ngir ragal borom bi nee na ba ca topp mooy ki nga xam ni dafay saraxe te sarax boobu loxo ndeyjooram bi koy joxe loxo càmmoñ bi du ko gis nee na yooyu bokk na ci ay recommandation yonent bi bokk na ci recommandation yi mu ni ixtanim xamsan xabla xamsin xayaataka xabla mawtik wa sixatika xabla saqamik wa faraqi qabla suxlik wa xab la haramik màngal juróom bale juróom comme yaa ngi dund góor góorgóorlul ci defar bala ngay dee nee na comme yaa ngi wér góor góorlul bala ngay feebar nee na comme yaa ngi am temps góorgóorlul bala ngay ñàkk temps nee na comme yaa ngi si digg doole góor góorgóorlul bala ngay ñàkk doole nee na comme yaa ngi am nga yalla manena la gan lu balako yalla lay nangu bo demee ba amato ko te jëfuloo won réccu dina am te ngeen lënkaloo ci bumu mu gi yéen ñepp te ngeen baña a and ànd gën waxtasimu bi hablillahi jamii'an wala tafarraqu gis nga lu bolo rek sakkan waye lu xàjjalikoo rek new doole borom kër bi xey yëkkati junni jox soxnaam ni demal marché bu ñëwee ba jógee marché bu toggee kër gi yëppay suur ba gan gu ci yem suur waye buñu ko ñu ko won woon ku nañ jox la sa wal do do sour ah buñu ko wecc ko won ku nekk ñu jox la sa wal ci dépense loko mëna jënd do sour waye biñu bolé lépp muy ben ñu dem jëndi dem ca marché duggi togg ñepp sour ba gan gu teyam suuraale borom bi nee waqtasimu bi hablillahi jamian wala tafarraqu wadkuru nicmatallahi alaykum id kuntum aadaan fa allafa bayna qulubikum فأصبحتم بنعمتي إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذهم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم yàlla nee na na ngeen ngoy ci buumu yàlla gi te bu leen teqali ko yéen ñëpp te ngeen ci ngoy te ngeen fàttali xéewalu yàlla yi nga xam ni xéewal na leen ko bu ngeen nekkoon noonu sax xéewalu yàlla tax na mu baax jubale seeni xol ba ngeen mujj ci xéewalu yàlla nekk ay mbokk ñu yéeneente jàmm te kat demoon ngeen ba loolu yóbbu leen ngeen ne ci kàmb buntu kàmb sawara daanu rek des ci yàlla xeetali leen ndax bàyyi ngeen noonu nga juboo ànd nekk benn noonu nag la yàllay leeralee di faram-fàcce ak biral ay kawtéefam xaj na comme nii la jibee ngeen dégg ko amaana ngeen jub xocc te itam na bokk ci yéen na am ñoo xam ne dañuy jóg taxaw temm di woote jëme ci lu baax ak a digle lu baax di teralu lu bon ñooñu daal ñooy ñi nga xam ne ñoo ñoo texe ñoo ñu mucc te bu leen nekk bokk ci ñi nga xam ne ni dara nekkale wuñu fi lu lor seen si siso di teqale rek ak a ruuxale ak ruutale te buur bi leeral na lépp ba pare kon tabaarakallaahu yal na yàlla dolli ñu tawfiq dolli ñu dégg nee na daal wala takunu kalladina farraqu wala takunu kalladina tafarraqu waxtalafu min baadi ma jaahumul bayinaat ñi nga xam ne dañu fi nekk di teqale ginnaaw bi nga xamee ni yàlla leeral na lépp nañ ba ñu xam ne lii mooy li baax lii mooy lu bon ñu wan gannaaw loola topp seen bakkan di teqale ñooñu dey yàlla nee na mbugal mu métte métti ñel na leen ah tabaarakallaahu oustaz xam naa euh, noo ngi dëgmal jeexitalu émission bi di nuyu sunu yaay alimatu mbaw moomu di ko ziara ngi jóge na màkka tabaarakallaahu ndeysaan eh, am nañu yaakaar ci ajam ndax ku am yitte la ñu koy ziara ziyaare sunu yaay aw Fall moom it jóge ne Màkka ak sunu jigéen Xajja Faat Jàllo tabaarakallaahu moom tamit ñëw na ak sunu jigéen bële di Ndey Mati Jóob moom tamit tabaarakallaahu ñëw na ñoom ñëpp waaye kilifa gu tedd gi nga xam ne moo nu jaboote fii ci rajo bi muy Ceerno Hamidou Yorobaan nga xam ne dafa boole woon ñaar mooy dem joxe ji ajam def umraam waaye nag encadré ñoo xam ni njàngaleem ak orientation ci wàllu aj màkka moo leen doy ñu ni ñoom duñu verser seen billet fenn fu dul ci moom ndax tabaarakallaahu setam ak sellam ak xam-xamam ak xam ni képp koo xam ni aju nga ci moom sa aj tabaarakallaahu dina set dina sell dina rafet dina tegu ci yoon moom itam tabaarakallaahu dem na ba liggéey liggéey bu rëy boobu ba dellu siwaat ci réew mi e di ñu ñoo ngi ñaan yàlla gën koo dollee dëgëral lépp lu mu fa ñaan yal ko yàlla nangu ndax la ëpp ca ñaan ya xam nañ ni jëmul ci moom ñu ngi jëm ci jullit yi ndax tey lii mënu baaxe ñu di ko ñu di ci jaamu yàlla mooy ubbi rajo te yonent bi wax ne balleex lii bi law walaw bi aaya jottali leen ma doonte benn aaya la kooku ku ubbi rajo rek yaa ngi ci liggéey liggéey bu rëy ndax tey fi kàddu gi àgg ay nit jube ci ay nit baaxe ci kenn xamul nu mu toll te lépp yenent bi nee na man sanna sunnatan xasana fa lahu ajruha wa ajru man amila biha képp koo xam ne xàll nga aw yoon nit jaar ca am ca yiw yow mi xàll yoon wi di nga am yiwu na tollu te du wàññ ci yiwam dara kon Ceerno du ñu ngi koy sant di ko ziare ci màkka ji di nuyu ak di sant sunu jigéen sunu directrice muy xajja ñu ma ba tabaarakallaahu di rafetlu taxawaayam ak disponibilité ak mbaaxam ak yaram ak nekk technicien yi mu ñu booleel muy ñoom Maxtaar ñoom asan ak ñi ñu ko bokkal ñëpp nga xam ne tey ñu ngi ci Safina FM ak bokk yu baax ñi nga xam ni ñoo bokk nekk fii di fi yëngutu muy imam Moussa Guèye li nga xam ne tabaarakallaahu yàlla ko yaral boppam ak Serigne Abdoul Aziz Fall moom it noonu ak al oustaz Mame Góor Top ak azati si ñoom ñoom ñëpp rek tabaarakallaahu ku lim juum ñeneen ñi ci des su ma waxee Chama Tidiane wat rek day yóbbaale Haalpulaar yi ngi ci des ñëpp ñoom Oustaz Pape Fall Abdoul Aziz Diop ñoom ñëpp rek nga xam ne ñu ngi jàllale fii émission yi te mu am solo lool ñu ngi leen di nuyu di leen ziara di leen jégalu itam ndax ah la ruba xaamili fiqihin xayru faqih bari na koy wax ñi lay déglu ñoo la gën a maîtriser li ngay wax te wax ci waxukaay yi ci xeeti natt yi la bokk ndax benn góor gu baax nee na boo nee dama ni raw nga ay buum teg benn nga yeew ñi ngay waxal mbaa nga yeew sa bopp nee ku ni dama ni rek ñëpp di la déglu nee na yeew nga raw nga ay buum teg benn nga yeew sa bopp mbaa nga yeew ñi lay déglu kon ko defee ay risque la wax ci rajo ak wax ci télé way faral wax ni boo préparé ñaar fukki baat di ko bëgg wax ñu ne la rajo ñëw na seggaat ko fukki baat yi dina doy nga teg fukki baat yi di ko bëgg a wax ñu ne telefaf na ñëw nee seggaat ko juróomi baat yi dina doy kon tabaarakallaahu dina yàlla dolli ñu tawféex e, kon ñoo ngi tàggatoo tàggatoo bu dul tàggatoo xam naa dañuy bàyyi sunu technicien bi mu mottalee ko animation comme euh, téléphone yi ubbeekuwul su ko defee ñu yemale jotaay bi foofu di nuyu képp koo xam ne yaa ngi nuy déglu di leen ziar di leen jéggalu buñ ci waxee wax boo xam ne bu jaarul yoon la faqidu shay'in la yi nit ki moom lu mu ñàkk mënu koo joxe ba mu jeex te dañuy nam nabi rek ak bëgg leen satisfaire kon asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.